doo dégg te am na télévision Mourchid TV ku ko moom mas ngeen digg communiqué Serigne Moustapha jaar Mourchid TV wa taiyahum uznun waaiya fa la ko yàlla dugal xamal na ko njabootam wa taiyaha uznun waaiya waaw wa kon li ko yàlla defal ci njabootam moo lay wan ne xàmmewul njobootam ak njobootu jàmbur gis nga ñii mu dimbale nii mën naa la ci limal fukk yu ma xam juróom yaa ngi dund juróom yi génn nañu àddina waaye sañu ma leen tudd am na ci koo xam ne dafa yëg ne ña ko bantal ay njobootam la ndax rek xaw koo mer Serigne Cheikh yegg ko sëñ Abdou ma ko nettali nee na man mii la jox fukki million sëñ Abdou ne ma man mii la jox fukki million ne ma demal ci diw nga joxal ma ko ko te ne ko li njaboot gi def yëguma ko waaye metti na ma nee na ma ñëw nuyoo wax ko ko jox ko fukki million yi mu ne ma eh, boo demee ne Cheikh Tidiane yal na fi yàgg lool waaye yal nañ ma yàgg duma lool ndax lii kat duma yi jaral na ko ci defar diggante sëñ Abdoul Amin nettali na ma rahmatullahi war a radiyallahu mu ne am na mbokk moo xam ne dafa amoon xaar ma yàlla diw noonu laa koy wax ne na Serigne Cheikh woo ma jox ma fukki million ne ma wërali ma diw boo demee nga jox ko ne ko ne ko diw moo koy wax loolu waaye man Cheikh tiijan du ma ko ko wax ndax yëg naa ni muy mel ci sama maam Seydul Xaaji Maalik loolu rek tax na mu ne ko maa ngi koo jéggalu ne maa ko dampee fukki million yi beneen bi Cheikhul Hadj Abdoul Aziz bi Zeynul Abidin gaañoo fii di setu Cheikh na Tidiane yi di doomu Chérif Mamadou Habib keroog sëñ Abdou mii la yónni fekk taalibe Tidiane xam ngeen moom dañ doy waar daanaka duñ jox sëñ Abdou laaj laaj affaire bi te keroog laa xam ne Abdou Diouf bii président Abdou Diouf keroog laa xam ne ci teraanga lay dee keroog laa ko xam duma tudd tur am na fa keroog ku fa kàcc kàcc yoo xam ne ndax dafa diggee lu mu dafa diggee ne dinaa joxe 6 millions te joxewu ko te góor gi boole woon ko ci budget bi ñu war a yóbboo shérif ay numaade ci Algérie góor gi dugg ci biir mook Cerno Muntaga ak euh, doom yi ñu régler la fa nekk ci xaalis ba noppi keroog góor gi yegg na ci su diw defutoon lii mooy 6 million yooyu ci kàddu danaa dem Touba sàndaga wax Njaga Géy mu jox ma li ma soxla te taalibe maam borom Touba la ma bàyyi leen fii yéen taalibe Tijaan yi daldi ne ana li diw joxe ñu ne ko diw joxe gu ko de mu ne gis dem leen ci biti ngeen wax ko mu joxe ko ndaw li génn ñëw ne ko diw dem na de mu ne ko dem bàyyiwu fi xaalis ñu ne ko déedéet bàyyiwu ko fi ah, sama góor bi mu sex baaram bi nii sëgg mu mel ni beneen dëj moo am ci dëj cinq minutes dix minutes Ousmane Paye bii nekk directeur de cabinet président Abdou Diouf ba fi may waxee yow nii te nekkoon fi ministre de la jeunesse et des sports nuyoo ñu fay mu ne papa ah président Abdou Diouf de moo ma yónni nee na yëguloon dëj bi waaye su ko teeloon a yëg wax dëgg yàlla kenn du ko fi jiitu léegi la ko yëg nag moo ma yónni nee na avion présidentiel pare na mu ngi aéroport di xaar mu ngi ci sa disposition koo bëgg mu dem mu yóbbu ko yóbbaale néew bi dal di yëkkati ne ko fukki millions yi nee moo ko def ci dëj bi ci 10 million lañ lañ lañ lañ yóbbu lañ waxoon ci kàddu ci 6 millions mu ne 10 million yi président Abdou nee na moo ko ci def mu ne Abdou ne ko yàlla na ko yàlla teral keroog laa xam ne ci teraanga lay dee Abdou Diouf bii ci teraanga lay dee te àjjana la jëm man maa la ko wax billaahi wal kitaab bi lu ko neex la na def kenn du jiitu Abdou juuf àjjana daf ko jënd man xam naa li may wax de Abdou Diouf defaluma dara nag masuma ko nuyu billaahi wal kitaab bi masuma nuyu président Abdou juuf nii loxoog loxo masul am kon li may wax yàlla rek a tax ma di ko xanaa Abdou Diouf jaralu ma man ma jëndee sama àllaaxira sama àddina li may wax fi ma ko teg xam naa ko ndax keroog fi mu jëlee alaaji Abdul Aziz <laughs> ku fa jëlee nitu yàlla mu defal la dara moo daloon diggante sëñ kër Si ak alaaji Tijaan Ñang mu ne ko li nga ma wax yaa yaa layta ni kuntu naalan aw aw sariran lil xalifati mu ne ko kookoo waxoon te amul yàlla ci da amul dara ci yàlla yi dana jéem rawati nag man Babacar mi nga xam ne li yàlla am yépp teg na ko ci sama loxo dal ne ma tiijaan ñang loo bëgg alaaji tiijaan ma ko nettali ci gémmiñam ca ndar maa ngi moom ñoo daan ànd ci làndar weeram ba di julli ji juma moo daan jiite it moom alaaji tiijaan moo ma ko nettali bi lisaan yi man li may wax yëpp dama naan la diw nee na fii la Abdou président Abdou Diouf jaar ak Cheikhul Hadji Abdoul Aziz ñu toog tuuti sëñ Abdoul Amin nuyoo ne ko papa ah, nga baal ma de sëriñ Cheikh moo mooy moo yónni Baye Omar Samb nee na fukki million yi moo ko ci def <laughs> ma ne ko Serigne Cheikh moo yónni Baye Omar Sàmb sànq ci man nee na fukki millions yi naa la ko indil nga dimbandikoo ko ndax Zeynul Abidin kenn la woon ci moom waaw te doomu sangam la doomu sangam la doomu sangam la góor gi ne amatul benn commentaire nañ def fàtte salaatu fàtte dal di ñëw Cerno Muntaga keroog moom la jël yépp teg ci loxo ne ko man sama yaram moo ma ko mayul waaye délégation bi formé ko te ngeen yóbbu Zeynul Abidin lii kii am na social wala amul social. social plus. Eh? Serigne li mu def ci social kenn xamut nu mu toll. bàcc jóob bii moo ma nettali ci gémmiñam nee na ma li ma am yépp ci Serigne Cheikh la jóge ndax moo xëy ne ma maa ñëw ne ko sa camion yaa ngay yàqu fële nga ko gaare woon mu ne ma yan camion ma ne ko yi nga amoon te gaare ko fële ca wetu HLM mu ne ko moo yooyoo ngi fi ba mu ne waaw mu ne ko jëlal demal nga jël loo ci mën a liggéey nga liggéey ci mu ne mu ne ma ci laa amee li ma yëpp ay camion ñu ne dama jël xanaa lu ca yàqu sax nga war ko mën a defar te du benn du ñaar bàcc jóoba ma ko nettali ci gémmiñam wax ma yu garaaw nag yoo xam ne bu ma ko waxoon fii àddina tukki moom bàcc jóob mu ne ma limaam yépp sëriñ Cheikh ma ko jox kon kii balaa ngay wax wilaaya njëriñ lim amaloon nit ñi ak ak sapeur pompier bi mu nekkoon ci réew mi bu du toon moom diggante Tuuba ak dana ñagas ñagas boo xam ne mara di caali waaye mu ci def ak li ci Cheikhul Hadj Abdoul Aziz def kenn xamul nu mu toll ba muy gane ji sëñ Abdoul Ahad boobu mbir a ko waraloon bu demuloon rek ñaari kër yi takk tabaarakallaahu bu demuloon rek ñaari kër yi takk ba mu demee sëñ Abdoulahat Mercedes ba mu ko may booleel ko ci ne ko ki koy dawal sax mën naa toog faf mu ne ko déet mën ngaa may oto nag waaye nit moom kenn du ko maye na ñibbiwaat rek te sëñ Fallu Mbàkke ko ko njëkk a defal nettali na ko démb ci waxtaan boobu ma déglu mu ne sëñ Fallu ba mu ko seet si bay ñibbi na ko ne na la sa oto jiitu te yow nga dugg ci sama oto mu yóbbu la nee na bi oto mu yegsee ba noppi ba chauffeur bi wàcc nee na mu ne ko ah dafa noonu naa fi faf bàyyi oto bi lim liggéey ci diggante Tuubaa ak Tiwaawan te Serigne Cheikh booy xool murit yee ko gën a bëgg ci tiijaan yi man li ma xam ci taalibe sëriñ Touba yu koy déglu kenn xamut nu mu toll. ah kay. kenn xamut nu mu toll kooku nit kuy defar la wala nit kuy tàqale la defar rek la xamoon mosul tàqali xanaa lu nit foog ne Serigne Cheikh day tàqali mosul tàqali ni Alaaji Abdou Aziz yore woon pusa di ñaw noonu la yore woon pusa di ñaw fi may jeexalee ci diggante boobu moo nettali Baye Omar Samb Baye Omar Samb nettali ma Baye Omar nee na dama ñëw sam papa Abdou ñëw ca kër ga nee na bi mu ñëwee ne ma sëriñ bi laa soxla ma ne ko yii góor gi loolu xalaatuma ko ma ne sëriñ bi bàyyi bàyyi sa papa ab doo lay seet mukk da ngay ñibbi kañ ba ma door a ñeme loolu waaye xalaatuma ko nee na ma wax wax wax mu ne ma demal nee na ma ñëw ne góor gi ah, sa papa ab doo moo lay seet de mu ne ma ne ko mu dimbale ma ngir yàlla dem rek wax ma fu ma koy fekk nee na ma naxanteeg moom ba góor gi dem nee na bi ndaw li ñëwaate nag ma faf sol sama mbubb ànd ak moom ne ma ñëw fekk ko mu toog mu ne ma Cheikh Tidiane dama am ñetti gag yu ma gag bëggoon nga dimbale ma ci nee na ma jël big ak fëy toog toogin wu yaru ne ko bismillah yan gat la mu ne ko ñaari korite yi ci réew mi neexuma bu ma sañoon du am naqari na ma ba ci kanam yàlla nee na ma bind mu ne ma juboo gi ci kër gi rataxul dëgguwul su dëggu woon nii mu demee du ko demee nee ma bind nee na ma beneen bi Abdou Diouf dama fa yónnee dama yónnee ci ndawam maanaam ministre am tudd na tur bi waaye duma ko tudd ndaw li yéex ma demal sama bopp mu tëju ma moom ministre bi nekk secrétaire am ne leen ko newuma fi metti na ma trop nee na ma ne ko papa pare na mu ne ma waaw yow rek lay dëgg mu ne ma ah mu ne ma ne ko ah papa du neex de nga baal ma du neex de li ma tontu du neex de mu ne ko waxal rek man maa la laaj Cheikh Tidiane mu ne ko ñett yëpp yaa tooñ mu ne ko ñett yëpp yaa mu ne ko Cheikh ci naka mu ne ko yow réew mi tey yàlla def na ñi fiy xalifa yépp yaa leen mag te ñépp ormal nañ la ñépp naw nañ sa xam-xam nëpp ñépp naw nañ sa njub ñépp gis nañ sa wàcc ak sa boo xëccoon sa téléphone bi sëñ Abdoulahat sa rakk la nga ne ko weer wi feeñ na du ci teg baat maam mbuu sa rakk la boo ko ne weer wi feeñ na du ci teg baat maam Alassane Raan sa rakk boo ko nee weer wi feeñ du ci teg baat ah alaaj Ibrahima Niass sa rakk la sa doom boo ko nee weer wi feeñ na du ci teg baat ndax ñépp la doy la ndax mos nga koo mos mu ne ko déedéet mu ne ko kon yaa tooñ mu ne ko nangu naa nee na mu ne ko nangu naa mu ne ko beneen bi mu ne ko boobu ma gën a metti na yow Abdou Diouf sax boo ko soxla da ko war a woolu mu ñëw waxuma la nga ministre am ngay sol sa mbubb di dem ci këram yónni ma walla nga yónni sëriñ Mansour wala nga yónni sëriñ Abdou daañu la ko doxal ba mu sotti te kenn du la yem bul demati ci kilifaam Abdou Diouf sax waxuma la ak moom boo soxlaa Abdou Diouf xëccal sa téléphone bi woo ko mu ñëw nga wax ko li nga koy doyee mu delluwaat mos nga ko mos mu ne déedéet mu ne ko Abdou sa doom la mos ko mu ne ko wax nga dëgg mu ne ko xanaa orma rek Cheikh Tidiane mu ne ko waaye orma na góor gi dafa am fu mu yem nee ne ko mu ne ko bi ci des juboo kër gi nag mu ne ko yaa tooñ mu ne ko nu ma tooñee Cheikh Tidiane man mi la woon bëgg kër gi juboo bi gën a ratax mu ne ko ah man de xam naa fa juróomi nit yoo xam ne bu ñu leen génnee tey rek jubóo bi rek ratax mel ni mu bëgg diw tuddal na ma diw ñu bàyyi omal diw ak diw ak diw ak diw ak diw juróom yii bu ñu leen génnee tey li des ci jant bi tiwaawoon yóbbu leen Cees rek juboo gi nooy jox ma ordre rek man Cheikh Tidiane ma dem génnee leen mu ne ko ëpp naa def ëpp naa def Cheikh Tidiane loolu kenn du ko def ñemewuma ko ndax sa papa nekk fi ba jógee fii fi génnuñ tiwaawoon ñu ne bi fi Abdou nekkee lañ génn Tiwaawan àttanuma ko mu ne ko kon du baax ah bàyyi ma sàmm ma nettali lii kon kii sapeur pompier la woon ci kër maamam Seydul Hadji waaye ku bañoon ku ko yab la nee na tout sëf kuy woyafal sëñ Babacar Si nee na kooku moom duma ko supporté xam ne na Maodo sax bu la neexee yaa xam ndax mook sëriñ Babacar la waaye sëñ Babacar nag moo man la duma nangu ko ko woyofal ndax woyoful waaw mu ne koo xam ne wilaayam ca yàlla mook malaaka yee koy xëccoo duma nangu waa suuf di ko foy ngeen bal maaq kon kii mooy Serigne Cheikh waaw kii mooy xutbu al fard al jaami fi zamanihi kii mooy doomi sëriñ Babacar Si kii mooy doomi soxna Astu Kan kii mooy sëtu maam Abdul Hamid Kan kii mooy sëtu Cheikhul Haaji Malik mu ngi génn àddina le le 15 mars jegeeg woy juróom moo lay wan ne ñoo bokki mbir sëñ Babacar lan le 25 mars kii le 15 mars quatre heures trois heures et jëm quatre la génn àddina yóbbuwaalewul boru julli julli na tisbaar ba yeggal woo siise jinge yónni ko siise jinge ma nett ni yónni ko le temps siise jinge di ñëw génn na àddina mujj ci loxol siise jinge ak sëñ Pape Malick ak maam moodo mu des nag fuñ koy denc ñu ngi ko rob minuit à matin mu des fuñ koy denc am na fuñ njëkk a gas mu niroo ko turandoom Cheikhouna Tidiane <laughs> maa la ko wax waaw ah, ah, ko li ma la doon wax ne moo niru turandoom ba ci demam mook turandoom a ko niru ñoo bokk heure buñ dem ñoo bokk nuñ demee ñoo bokk nuñ leen gasale Cheikhu na tiijaan yi dañ ko gasal gasalaat ko Cheikh na tiijaan yi al maktuum dañ ko gasal gasalaat ndax am na fu xel yi njëkk xalaat maam Maodo ne leen waxutoon foofu waxuloon foofu ñu ne fu mu waxoon muy fële ci këram gële dem ngeen laaj sëriñ Sidi Ahmed si bu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz si ñoo jàkkaarloo fañ denc Serigne Cheikh ak këram ñoo jàkkaarloo nee na heure bu góor gi daan tukki jaar foofu danaan chauffeur bi taxawal mu taxaw mu ne ko am na bruit bi may dégg fii de <laughs> mu ne mosul romb foofu te newul chauffeur bi taxawal mu taxaw mu ne ko am coow li may dégg fii daal jaaxal na ma trop. bari naa coow fii daal am na lu fi nekk nee na daal ni dafa ñaan dem foofa lañ dañ ci sëriñ seex tey fañ jëkk a gas dañ ko suul gasaat fii nañ defaroon Cheikh na tiijaan yi moom it dañ jëkk a gas fañ gas ñu sulli ko gasaat feneen foofa lañ ko nañ ci ba tey kii mooy sëriñ Cheikh kii moo doon nu Seydul Xaaji Malik kii moo doon nu Seydi Aboubacar Si kii moo donn cheikhul abdul aziz kii moo doon donn alaaji mansour kii moo donn cheikhuna tijaani radiallahu anhu waaye kii mooy xalifa rasulullahi waaye kii mooy xalifatullahi fi l ard huwa maktumun ku ñu nëbb la kenn xamu ko lu waay wax ci moom rek azakam waxagoo ko waaw ci comportement ci jikko ci xam boppam ci miin miin yàlla miin peyu yàlla bi miin wax ak yàlla waaw daan na wax ne ni may waxeek sama bopp laay waxeek yàlla te mosuma rejeté waaw mu ne barzaq nag moom maag ñoom a dëkk ni may demee Tiwaawan lay demee barzaq di waxtaan ak ñoom waaw mu ne menn mag réeru ma dégg ngeen am na benn waxtaan ak maa ngi ko yor sax ci sama portable mu ne mag ñépp balaa ci kenn di dem dina ma bind lettre pour ma négocier ko fa mu jëm <laughs> mu ne mag ñépp balaa kenn di dem dana ma bind lettre mu ne ba ci mbay doon de mbay lettre bu toll ni ñay la ma bind waaw nee na xaw naa saalit sax waaw yaa waarisal yi wal xut bi ma ne ah ëpp na nag ëpp na waaye mbay doon ne da koo xam waaw mu ne mag ñépp kenn ñemewu cee dem te tàgguwoo ma mag ñëpp la wax nag mag ñëpp te looloy dëgg mu ne kenn ñemewu cee dem te tàgguwoo ma fokk nga tàggu mu ne sama papa Abdou sax négocier loon nañ ko ba pour téeméeri at mu dund téeméeri at lu tax mu dem balaa téeméeri at loolu lañ war a lijjanti mu ne ñi ko doon négocier ci laa bokk ñu ko doon négocier ci laa bokk mu ne ba nanguloon nañ ñu ko waaye ma nangoo ci làmmiñu Thierno Bachir Mountaga Daha nee na moo def départ volontaire waaw moom it ci ñiy signé dund yi ci la bokk Thierno Bachir waaw ñiy signé di valider lu nit war a dund ci la bokk ñu yokk wala ñu wàññi kii xam na ci dara Mansour Gueye bii xam na ci dara laaj leen ko xam na ci dara li tax ma wax ne xam na ci dara ba ma koy woo téléphone ca kër docteur Dieng ne ko diw wax nañ ma biig ne dafa war a dem fii ak ñetti fan bu mu dem mu ne ma wax nga dëgg de ñaata ñaata nga bëggoon ñu dolli ko ma ne ko ñetti weer mu ne ma yaa bon ñetti weer tuuti na di nañ ko def nangami at nangami at yooyu la dund net dem kii xam na li may wax dama bañ a tudd tur Thierno Bachirou mii ci Louga foofu lay jeexale moo ma nettali moom Thierno Bachir ndax kenn mënta tudd Serigne Cheikh te tuddoo Thierno Bachir ndax Thierno Mountaga daaxaa tax moo ma nettali mu ne Serigne Babacar Sy Thierno Bachiru Mountaga daaxa Cheikh Oumar moo ma nettali mu ne Serigne Babacar Sy moo tax Thierno Mountaga dëkk Louga moo bind lettre yónnee ko. ne ko àll bi nga nekk nit ñi dañ lay réere ba danga leen di lor dama bëgg nga toxu si Louga capital la nit ñi daañu la xam nee mu ne ko bu ma ko alaaji Malick ñaanoon ma defal ko kon boo ma ko ñaanee ma defal la ci la toxu si Louga nee na mu yónni Serigne Cheikh ba si damay nettali ak ñett ñu sëriñ Cheikh àndaloon mu ne ko soo demee nga ne Thierno Muntaga Cheikh Tidiane mii dama ko yaakaar ci ndonol mag ñi ne li ma yenu dana ko yenu ma bëggoon mu seetal ma digganteem ak boromam ndax dana woyof walla nu muy mel ne na cam na Muntaga ne leen dangeen di fanaan bon ba bër set ñoom Serigne Cheikh ñi mu yónni woon ñi sëñ Babacar yónni nee na fanaan ba bër set ne na mu jël benn kël def ci nen ñetti nen jox leen ko ne leen dangeen di dem ba gannaaw luga jànj bu ngeen njëkk a jot xam ngeen jànj ngeen jël benn nen ne bu dee Cheikhuna na li baayam bëgg Cheikhna eh, Ahmed Cheikh Ahmed Tidiane si al maktum li baayam bëgg ci moom dana am su nen bi buñ ko dóoree ci jànj bi bum toj su fekkee dina am du am na toj su fekkee dina am nag du bum toj xam ngeen nen nee na ponkal mu yónni ni Bachir nee na dañuy xaj ci ba seen loxo dem fu mu foogul ñu dóor nen bi foddat ñu jël nen yépp ñetti nen yi def ko ñetti nen yépp yépp foddat te bu ci benn tojoon mooy du yenu yen bi te ñett yooyu benn bu ne rëms la waaw mooy moo doon na yàlla doon na yónnent bi doon na Seexu na Tijaani nee na ñu jël nen yi indil Thierno Mountaga nee na mu bind benn saafara dégg ngeen sëriñ Cheikh waxal ko bopp nee mu bind benn saafara jox ma ko ma def ko ci benn mbutil su tuuti nee mu ne ma feeg saafara bi jeexul rek doo dee boo xëyee nga laal ci tuuti rek mbutéel si ni flacon la toll sëriñ Cheikh ne na waxtu wu ma ko laalee mu feesal saa yu ko laalee mu feesaat butéel bi feesaat nee na Thierno Bachir ne ma mu yónnee ci sëñ Babacar ne ko ah kii de boo yeboo nga def ci moom ndànk kenn mënu ko doon teree doon nu Cheikhuna Tidiane ak yonent bi yàlla nangul na ko ko ba noppi loolu Thierno Mountaga Daha moo ko seede Thierno Bachir a ngi dund dem leen ci moom ngeen laaj ko man du lu ma lay nettali Thierno Bachir a ngi fii ci Louga ku weddi li may wax demal ba ci Thierno Bachir nga ne ko Chérif Ibrahima laa dégg mu nettali ko dana la nettali leneen lu ma la rus a nettali man kon kii mooy Serigne Cheikh mag ñépp mag ñépp jël nañ li ñu am jox ko door a wuyu seen borom mag ñépp jël nañ lim li ñu am jox ko door a wuy ji seen borom mu incarne lépp ne patt te kenn xamul waaw di ba ma ci daan wax nag daan naa wax ne nii ñi léeg boo ci wax ñu ne kon sëñ Mansour li ko laa ab du defar xasida ah li ko laa ab du defar xasida kon fu fu sëriñ Cheikh ne woon nit dana doon nit fukki at muy dund càng yaxyaa li moomu ko nettali nee na sëriñ Babacar si alaaji Abdu doon na ko 47 la ko doon 57 sëñ Babacar si doon génn àddina dem leen laaj sëriñ Maodo si ba ma ko cam na yaxyaa waxee ma di ko nettali sëriñ Maodo ca Pombal soxna Fatou ngi toog si imam Moussa Gueye ngi toog daayira laa ko yóbbuloon ñépp a ngi toog ma nettali ko foofu ci Bamba te Cerno Yaxya moo ma ko nettali nee na nee na te ba muy aji màkk la kon mbir mi du noonu xilaafa googu nag alaaj du jox sëriñ Mansour xaqiiqatan mooy xilaafa gi sëriñ Cheikh yoon passation de pouvoir day am gisoo ministre bu dem balaa ministre bi di dem dañuy passation def passation mm-hmm. bu dee ci xaqiqa nag ca xadara ba minimum di ngeen def passation de service dix ans xilaafa boobu la ñuy wax xilaafatul haruniya léeg nga jëkk jiitu borom léeg nga des ci tariqa bi moom la ñuy wax xilaafatul haruniya kon fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin ki mooy Serigne Cheikh Al kii mooy doomu Serigne Babacar si kii mooy doomu Soxna Astu Kan kii mooy sëtu Maam Alaaji Abdul Hamid Kan kii mooy sëtu Cheikhul Xaaji Malick di Cheikhul Xaaji Malick nag waaye di Serigne Babacar Sy waaye di Maam Abdou Hamid Kan yal nañu yàlla taas ci barke yal nañu yàlla taas ci barkeem yal nañu yàlla ci barkeem yal nañu yàlla taas ci barke Serigne Cheikh Tidiane Sy si Maktoum yal nañu ko sut fan yal nañu dese barkeem yal nañu ko sut fan yal nañu dese barkeem li mu bëggoon ci njobootu maamam Cheikhul Hadji Malick yal na ko yàlla def gannaaw li mu bëggoon ci umma islam bi yal na ko yàlla defal ko ko gannaaw li mu bëggoon ci njobootuk boppam bu deret ak bu roox yal na ko ko yàlla defal ginnaaw waaye li mu bëggoon ci Sénégal jàmm ju sax dakk ba tax ko nekk sapeur pompier ci wàll yépp yal na ko ko yàlla defal ginnaawam ci barke baayam Seydi Aboubacar si ci barke maamam Cheikhul Hadji Malick yal na ko ko yàlla defal wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ah maa ngi jéggalu nag